tabaraka wa taala muy ngir ngeen jële ci ak ragal yàlla ragal yàlla boobu suñu borom wax nga xam ne moo tax mu wàcce ci ñun koor kon nit ki saa yi woor war naa seet ndax man mii ba ma dalee woor ba léegi ndax sama ngëm yàlla mu ngi yokk wala ndax sama ragal yàlla mu ngi yokk kon li tax suñu borom wàcce ko saa yu nit ku demee ba seetlu boppam xam ne moom mi kër ba ba léegi amul lenn loo xam ne soppiku na ci moom kon war naa xool baax ni muy woore alax noonu la ko ko sante suñu borom nag jaam yàlla bu mu wàccee dafa am lu tax mu wàcce ko ndax ragal yàlla bu muy wax suñu dafa am loo xam ne daf koo dig ñi nga xam ni ñoo ko la ñi xam ne ñoo ragal suñu borom suñu borom dafa am loo xam ne moom leen dikk di nga dem ci alquran di ñu fekk aay yu bari suñu borom tabaaraka wa di wax ni nangam maa ko dencal ñi nga xam ne ñoo ma nangam kër maa ko dencal ñi nga ragal kon weer wu mel nii bu ñëwee jullit bu nekk war naa jéem a gaawant ngir mën a àgg ci ngërëmul boromam. waaye war naa jéem a gaawal am yërmande suñu borom wa taala boo demee ci suuratu Aali Imraan suñu borom moo fay ila maxfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samaawaatu wal lil muttaqiin nee na ngeen jëkkante na ngeen gaaw ci sàkku njëggalu nit ki mën na cee sàkku njëggalul boromam tuub li nga xam moom la def ci ay bàkkaar tuub li nga xam moom la doon def ci ay ñaawteef te fas ci yéene delloo ndax suñu borom bu ne jëkkante leen kon diir bi nga xam ne ci nga nekk xam nga ne day jeex kon da gaaw ngir mën a sàkk sa njëggalul borom waaye nga gaaw ngir mën a sàkk sa yëmbande borom kon suñu borom ne bu waxee ni jëkkante leen sàpp seen jëkkërul borom kon lu rëy la lu mu ca teg mu ñu njëggalu seen borom boo gën su ngeen ko amee di ci mën a amee àjjana joo xam ni yaatuwaay ba moo ëpp asamaan ak suuf jàmbi bi sonn ci àdduna lépp ngir dajeek boromam boromam yërëm boromam jéggal loolu lay bis bu dajee borom tabaaraka wa taala mu jéggal ko yërëm ko bisu kanam mooy texeem ndax la cay topp mooy suñu borom dugal ko àjjana joo xam ni doo fa génn ba faaw kër àjjana boo xam ni ku nekk la fay am moo ëpp asamaan ak suuf kon jullit bi war naa jéem a góorgóorlu ngir mën a daje ngërëmul boromam waaye tamit ngir mën a daje njëggalu boromam suñu borom la bu ñu limee yooyu yëpp daf ni loolu kat u'iddat lil muttaqin maa ngi ko waajal ñi nga xam ni ñoo ma ragal kon suñu borom bu indee koor ngir jële ci ak ragal yàlla ragal yàlla boobu liñ ci mën a jëlee mooy jële ci njëgalu suñu borom tabaaraka wa taala ngir mën a bokk ci ñi nga xam ni yàlla daf leen dig ëllëg àjjana ni àjjana jooju kër maa ngi ko xorataale ñi nga xam ni ñoo ma ragal u'iddat lil muttaqin ñan ñoo ragal yàlla mu mel ni ki suñ borom bu ñu waxee loolu dafa poussé ay mbir yoo xam ne ay mandarga yoo xam ne day nekk ci nit yi xam ne dafa ragal yàlla mu teg ca ni allazina yunfiquuna fi sarraai wa darraai wal kaazimina al xaysi wa aafina an innaas wallahu yuhibbul muxsinin mu ni ñoo ma ragal day foo leen fekk di nga fekk ñoom jikko yi mu ni mooy ñi nga xam ne day fu mu ngi jël seen alal di ko joxe te yàlla tax mu am danoon nekk ci situation boo xam ni donte sax mi ñuy joxe am nañ ci soxla waaye dañ koy def ngir yàlla wala sax ñoom mën nañ koo joxe ba pare mu nekkul loo soxlawaat ko waaye teewul dinañ ko def ngir yàlla nee na ki nga xam ne màndarga ragal yàlla dafa nekk ci moom foo ko fekk màndarga moomu day feeñ ci moom allazina yunfiquuna fi sarraay wa darraay mu ni wakaazimina alxaysi nee na ñoom de foo leen fekk mën naa am lu dox seen digganteeg nit moo xam am mer mun jàppal doomu aadama la nit moo xam ne maa naan koo fekk wala maa naan jëflante moom xëy na ko ëpp kàttan wala ñoo ëpp doole wala ñoo ëpp sax ay relation yoo xam ni mënoon na jëflante moom ci wàllu ko ñi nga ma tooñe leen mënoon na maa fayeeku lu ko raw waaye teewul ndax te lan koy def dara ko def pour na ki ragal di nga ci moom màndarga moomu. mu na ñooñu tamit foo leen fekk na ñu la ñu doon bu tamit nit koo xam ne ku la. waaye tamit kun seqal ci jàmm ni seqal ak yow waaye kun dëkkal tamit du la lor ci àq dëkkandoo ci jàmm a la ñuy dëkk ak yow waaye tamit nit ñu nooy lañu doon ñoo xam ni foo leen fekk da ngay jàpp ni sax ñii kat xëy na dañoo amul soxla ci àdduna waaye fekk na xol ba gëm yàlla da ca nekk ak ragal yàlla da nekk ca xol ba moo tax mu mën a doon nit ku nooy koo xam ni saa yu jëflante moom rek da nga xam ne kii kat ku ñàkk ay problème mu ngi nii ku ñàkk ay jafe-jafe mu ngi nii loolu la koy def mooy ragal yàlla gën a ca ba suñu borom nee na bokk na ci mandarga yooyu nga xam ni ki ragal yàlla lay nekk ci moom nee la wallazina isaa faalu fahisata aw zalamu anfusahum sakaru llaaha fastaxfaru li sunubihim nee na mooy ñi nga xam ni foo leen fekk bu ñu jëlee jënd jëf joo xam ne jàpp nañ ni ñu ko jëfi bàkkaar la wala jëf joo xam ne def nañ ko jàpp ni ñu jëf bu ñaaw la wala sax wax nañu nit ci génn kàddu boo xam ne jàpp na ni amul ay teggin ne da ngay daal di gis seen kanam ya day daal di rafetlu lool seen xel dellu ci yàlla ñu dellu tuubaat del si waat lazina isa faalu sax aw zalamu anfusahum nee na aw zalamu anfusahum wala sax ñu seen bopp ndax nit ci saa yu defee bàkkaar bu mu jàpp ni yàlla la tooñ waaye boppam la tooñ naka la tooñee boppam suñu borom def ni ko bul def lii moom mu jéggi la ko suñu borom digaloon def def leneen kon bàkkaar boobee nu mu tooñee boppam bàkkaar bu mu def moom kër day sabab ñu mën ko cee mbugal ëllëg dóor ko ci wala ñu dugal ko ci sabab kon boppam la tooñ ma suñu borom ni kooku saa yu liggéey moom kër tooñ la boppam dafa def bàkkaar day daal di delluwaat ginnaaw daal di tuub delluwaat ci boromam nee kon li nga xam ne ragal yàlla nekk na seeni xol jikko yu mel ni day nekk ci ñoom nee na su borom nag ba mu waxee loolu ba pare daf caa teg ni wa mastaxfiru wa man yaxfiru sunuba illa allah waa ana kan mooy jéggal bàkkaar yi kan moo ñuy jéggal seeni bàkkaar ku dul yàlla kon yàlla nga xam ne mooy jéggale bàkkaar yi ba pare nee na soo matoo ñuy jéggalu ma ma jéggal kon koy jullit bi saa defee bàkkaar war naa mën a delluwaat ci boromam tuubaat raxasaat ak xolam fas yéene jëf-jëf ju baax mu ni wa man yaxfiru sunuba illa allah wa lam yusiru ala ma faalu wa hum yaalamun nee na te lépp lu def ci jëf moo xam jëf ju baax la wala jëfi bàkkaar la loolee borom tabaraka wa taala xam na ko loolee borom tabaraka wa taala xam na suñ borom nag moom ñu ne ñi nga xam ni wax nañu foo fekk ci nit mandarga yu mel ni xamal ne ak ragal yàlla mu ci moom suñ borom daf cee teg ni ulaika jasaauhum maxfiratun rabbihim wa jannatin arda min tahtiha al anhaaru fiha wa nicma ajrul aamilin nee na ñoom day seen pay na mooy seen borom jéggal leen kon jéggul ñu doon sàkku am na ko seen borom mooy njëggal boo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala dina leen ko jëggal nee na bu leen suñu borom jëggalee ba pare lu mu cee teg na joo xam ne ay dex mu ngay daw ca suuf ndax këru àjjana boo xam ne moo gën a yaatu àdduna gën a yaatu asamaan bu la nee ay dex mën naa am ca biir ku nekkoon na ko mën a jël ndax këri àdduna yi rek da gis boo xam ne day defal këram bu taal ba pare def ay piscine ca biir. kon suñu borom su la nee kër àjjana su ma la ko joxee dinaa la fa jox mboolem loo soxla ci xéewal ba pare dinaa la defal ay dex ci biir yoo xam sax bu dee jooju ñi wala loo soxla ci jëfam xéewal suñu borom subhanahu wa taala day defal ak dex boo xam ne da dem rek jël ca la soxla àjjana mooy kër boo xam ne nit ki su fa xasee dugg amatul coono. mooy kër boo xam ne nit ki su fa xasee dugg amatul xëy naan damay sàkku ji dépense wala damay wuti lu ma am yow daal mel na la sant toog moo la ñuy xéewal bu nekkee sam xel mi indi la ko ba pare suñu borom boole laal ay ndaw yoo xam ne loo soxla fa nga fa jóg fa fekk ba pare wutal la ay soxla yoo xam ne soxla si ca euh, ku ci nekk taar bu mu yor kenn xamul mu mel kon suñu borom bu ñu melal jullit àjjana naan àjjana mel ba pare naan leen fexe leen ragal yàlla ngir mën a am ci xéewal yooyu kon jullit bi nekk ci moom. kon nga gis ne yonent di waxtaan ak saxaaba yi loolu àjjana ngir ñu mën a yokk seen jëf yu baax. ngir mën a góorgóorlu gën a laxasaayu ngir mën a daje xéewal yi suñu borom tabaaraka taala dig ndax àjjana kat xéewal yi la ñuy rëy rëy rëy suñu borom tabaaraka taala julliti la ko di waxtaan ak yi ci xéewal yi àjjana ba ñoom li ñu daan xamte woo di ko yàkkamti mooy xare am ban dem xeexal lislaam seeni bakkan des fa ngir ñu mën a dem àjjana kon ñooñu xamoon nañ ni dundul àdduna bi lu mu yàgg yàgg lay jeex ak loo fa mën di dund moo xam xéewal la moo xam jafe-jafe la waaye benn kër rek ngay mën a dem sax fa ci ay xéewal te doo fa jóg muy àjjana xéewal yoo xam ne doo yaay xëy di liggéey ñu ko uti waaye du yaay fekk loo xam ne loo soxla lu mën a doon rek suñu borom kon sahabatul kiram ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu dañu ba sax dañ daan toog ba laa ñuy laaj yonent bi jën jëf mooy jëf joo xam ne su ma ko defee dinaa mën a dem ni su ma ko defee suñu borom tabaaraka taala dina ma mën a ci sawara ci benn hadis xam ni Muaz ibn na ci saxaaba yi gënoon a jigéen dem sallallahu alayhi wa mu solo ci hadis bari na lool Muaz bi muy dugg ci lislaam 18 ans la am. fukki ak juróom-ñett ci àqaratu saani ci la dugg ci lislaam maat moom moo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam axbirnii bi amalin yudxiluni min aljanna wa yub'iduni min annaar yow yonent bi damaa bëgg xamal ma jënn jëf joo xam ne su ma ko defee suñu borom dina dina mën a dugal aljanna waaye dinaa mën a mucc ci sawar laaj na laaj bu rëy boo xam ne jullit bu nekk loolu war na la yitteel lan laa mën a def ba su ma génne àdduna mën a dugg àjjana mën a mucc sawar ndax kër ginnaaw bu jullit bi génne àdduna ñaari dund rek koy xaar benn muy dund àdduna wala muy dund alaaxira sawar kon ñaar rek mooy xaar doomu aadama ji kon nag jullit bi war naa mën a yittewoo loolu man na may def ba su ma génnee àdduna sama kër mën a doon àjjana waaye nag ma mën ci sawar kon saxaaba yooyu loolu ñoroon na leen lool ba tax dañ ko daan daan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Muaz mii daal di laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonente bi damaa bëgg nga xamal ma jënd jëf joo xam ne su ma ko defee dina ma dugal aljanna waaye dinaa mën a mucc ci sawar lu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tont sa'altu an amrin azim ni ko laaj nga lu rëy laaj nga bi mu màgg ndax xam ne jullit bi li gën a rëy ci moom mooy dugg aljanna waaye li gën a rëy ci moom tamit mooy mucc sawara moo tax loolu ngay bi saa salaam tontu ne ko yow kat laaj nga mu rëy mu ne waaye nag fa innahu la yasirun ala man yasarahu ni ko lii nga laaj nag lu yomb la ci koo xam ne yàlla yombal na ko ci yow kon nga gis ne même sax nit kiy jëf jëf ju baax day fekk suñu borom tabaaraka taala moo ko ci tàggat ba mën a jëf-jëf ju baax waaye nga gis nit koo xam ne jëf jëf ba jëf ju baax fekk na suñu borom tabaaraka taala moo tàggatul ak xolam ba mën a jëf jëf ju baax waaye saa yu neexee suñu borom rek mën na ko wëlbati wëlbati ak xolam ba mën a jëf jëf ju baax kon jullit bi liy yitteem mooy saa su nekk day ñaan suñu borom tabaaraka mu tënk ko ci yoonu siraatal mustaqim tënk ko ci yoon woo xam ne yoonu njub la muy yoonu yonent bi ak jëf jëf ju baax ba keroog muy dajeeg moo tax yonent sa sallallahu alayhi ko loolu ni ko. waaye loolu nga nag day lu yomb la ci képp koo xam ne yàlla yombal na ko ci yow suñ bu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko abudullaha wala tusrik bihi shay'an bi jëkk bu mu ko wax mooy na nga fexe ba jaamu yàlla te bu ko bokkaale ak dara kon loolu mooy point bi jëkk ci nit ki bëgg dem aljanna fexe ba say jaamu yàlla kenn du ca mag ceeb ku suñ borom tabaaraka wa taala fexe ba sa digganteeg sa borom dara ko fa dox lu dul suñu borom tabaraka wa taala kon loolu mooy li jëkk li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax Mu'aaz ibn bi mu ko laajee ma bëgg nga xamal ma jëf joo xam ne su ma ko defee dem aljanna waaye dara mu ci sawar ba jëles mu ni ko wa tuqiimu salaat te na nga taxawal julli wa tuuti zakat te na ramadaan te ngay woor weeru koor wa tahajjul bayti te bu fekkee mën ngaa aji màkka nga dem aji màkk kon boo xoolee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu loolu mooy juróomi ponk lislaam muy sahadatan laa ilaaha illallah mooy nga seedal yàlla rek lan war a jaam ba pare nga sax ca loolu di jaamu sa borom te doo ko bokkaale ak dara boobu mooy bi jëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam baax ba ca des mu ne ko nga taxawal julli ba des nga sàkk asaka bu fekkee tamit am nga alal doo mën a génne asaka ba ca des nga woor weeru koor bu fekkente ne moo ngànt loo xam ne lislaam moo la ko teggeel ba ca des bu fekkente ni am nga kàttanu mën a aji màkk te am loo fa mën a yóbbu nga dem aji kon juróomi ponk yi la yonent bi saa saa ñu doon Muaaz ibn Jabal ni ko bu fekkente ni bëgg ngaa dem àjjana de lii mënta ñàkk kon jullit bu nekk war naa taxaw xool juróomi ponk yi nga xam ne mooy ponk lislaam ndax man koy taxawee wala ndax maa ngi koy jëfe ni ma ko sante ndax borom xam-xam wax na ni juróomi ponk yi nga xam ne mooy ponk islam benn boo ci weddi ndax du la jëriñ benn boo ci wedd jëru jëfe ba ca nit ki ni man damay woor waaye du ma julli koor ko jëriñ dara nit ki ni damay julli waaye du woor koor ko jëriñ dara nit ki ni damay woor Euh, di julli waaye maa ngi alal joo xam ne mën naa ci génne asaka waaye mënuma ko jëru muy julli jëru muy woor bu ko jariñ dara nit kii julli di woor di génne asaka te fu mu toll mu ngi dugg ci bokkaale jëriñu ko dara nit ki noonu nit ki nga xam ne am na alal ju ko mën a yóbbu màkk mën a aji ba pare am kàttan nag man koo def ba pare defu ko te mu benn ngàtt bu ko tere kooku la def bu ko jëriñ dara ndax ponk lislaam bépp boo nga koo def te amul ngànt loo xam ne lislaam moo la ko teggil nga bàyyi ko daanaka jël ko nga defee ca des ndax moas bu ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamal ma jëf ji ma yóbbu àjjana juróom ponk lislaam yi la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddal kon jullit bi war naa bàyyi xel ni juróom yi amul benn moo xam ne dafa ciy def bàyyi morom ma mu koy jariñ ki xam ne weeru koor dafa ñëw amul benn ngànt bu ko mën a woor mën naa woor am na wér benn ngànt boo xam ne dama koy tegg amu ko mu ne man kat duma woor waaye damay jël sama alal di joxe kooke alal jooju mu joxe jëriñu ko dara ndax la ko suñu borom sant mooy mu woor su fekkee dañ sant jëf nga mën koo jëf te jëfoo ko di jëf jëleen jëf même jëleen jëf dañuy jëf kenn du ko nangoo bu fekkoon ne nag daa woor ba mënatul mu tamit dem ba dafa am teggi ko loolee alal jooju muy joxe muy day lere boobaa def naa moo koy sant ndax def naa su la tegg leen yi day tegal bi waaye bu fekkee ne mbir mi kat yaa ko tegal sa bopp teg fi leneen la nga tegal sa bopp ak la ngay def lépp du la kon jullit bi day doon koo xam ne dañ koy sant ni ko defal mu def su ñu nee ba mënatul nag lislaam xam ne mënatul lislaam ni nii defal lii kon jullit bi lépp lu muy def rek dafa war a tënk ci ndigal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak borom bi tabaraka wa taala waaye waru koo tënk ci bëgg-bëggu boppam wala ci bànneexu boppam kon amul wenn yoon wu nit di jaar wala wenn yoon wu nit di xàll tudde ko yoon wu jël aljanna ba pare woon ginnaaw ponk ci lislaam mënut nekk yéen bi yàlla yónni woon ci ñun bi ñëwee li indaale mooy juróomi ponk juróomi ponk yooyu kenn ku bëgg a jaamu yàlla ci ngay jaamoo yàlla ba pare nag lañ ciy dolliwaat ci ay naafila nga soog ko cee dolliwaat waaye mënoo ni kat damay naafila te du fa ponk yi suñ borom balaa wax ne joxe leen seen alal dana aqimu salaat waatu zakaat joxe leen taxaw leen julli joxe leen asak soog a sàq waaye mënoo ponk lislaam bii ngi sa kaw defagoo ko ba pare bëgg dangay def dangay naafil la loolu lislaam du la bu nekk wax na bàyyi xel ni eh, yoon wi moom yoon képp la mooy yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu bi nga xam ne yonent bi wax na ni mu as ba pare dafa am lu ko ci tegal ni ko kon kanam da ngaa laaj yoon woo xam ne yoon mu jëm aljanna la ak yoon woo xam ne walay sori sawara la kon yow lu la doon ci aw yiw bu doy dal ni ko am naa adulluka ala abwaabil xayri ni ko ginnaaw ba nga defee nii la ba pare muy porte islam xaaral ma tegtal la yeneen buntu yoo xam ne soo ci jaaree da ngay am yeneen yiw yeneen yiw yoo xam ne da koy doon ci li la santoon mu ne ko as-sawmu junna mu ne ko bu fekkee tey mànga di woor koor boo xam ne du koor farata moo xam altine wala alxames la wala ñetti fan ci weer wu nekk mu ne ko koor boobu ngay koor mu ne ko pàkk la boo xam ne dox sa digganteeg bànneex dox sa digganteeg mooy yàlla maanaam dalay sàmm ba dox sa digganteeg mooy yàlla ba dox sa digganteeg bànneex ba ca mu ne ko war sa daqatu ak sarxe moo xam da ngay jël sa alal di joxe fii sabilillah ginnaaw ba nga defee leen lislaam sant ba pare mu ne ko sarax boobu nga def nag tut fii u xatiya day effacer say ñawteef day fay say ñawteef comme ni sawara comme ni ndox di fay sawara mu ne ko sarax yi ngay def di ko def kii dafa laaj ñan jëm aljanna yow tamit dugal ko ponk islam ba pare nag di ko dolli yeneen ngëneel yoo xam ne daf koy def ngir aw yow mën a yokk waaye nag mënoo fee tëb ponk islam bàyyi ko fi ni maa ngi leen ca ngëneel ya mënul nekk da def lay ba pare kay soo ko ñëw lii ngir dolli ba ci des ni ko wasalaatu fii jëw fi léegi bu fekkente ne man ngay julli ci diggu guddi gi fekk nit ñaa ngi nelaw mu ne ko julli guddi yooyu ngay def yiwu rek nga xam ne suñu borom tabaaraka su la koy fay ëllëg dalay jox rek waaye kenn ko natt daa koy jàngal aaya ba te tajafaa junuubuhum anil madaaji yad'uuna xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun yéen tamit saa sant daal di jàngal Mu'aaz aaya boobu ni ko yàlla tàgg na ñi nga xam ne dañu tëdd ba guddi jóg di julli julli yoo xam ne sax du farata waaye dañ koy def ngir lan. ngir yokk seen yiw ngir gën a mën a jege seen borom mu ne ñooñu de suñu borom wax na ni ëllëg yow ak am fu mu leen di fay seen i jëf dañ leen di jox ban lay waaye kenn koo kenn ko kàrkeen kenn ko kàrkeen fala taalamu nafsun maa ukfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kaanu yamaluun ba te des mu ni ko <clears throat> yow Muaas bi ma la waxee li nga xam ne mooy ponk lislaam ba pare ba pare nag wax na li nga xam ne moom nga ci war a teg. muy ay naafila yoo xam da nga ko ciy dolli ngir mën a yokk sa yiw mën a yokk sa tiyaaba mu ne ko nag maa ngi lay wax benn mbir boo xam ne moo boole yooyu yëpp mën a doon wax ndax yooyu yëpp te ba pare mën ko koy def ba pare mu yàqu mu ne ko allah uxbiruka bi milaadi saalika kulli maa ngi lay wax li nga xam ne moo boole yooyu yëpp mën a doon wax maas na ma ne ko yow yonent yàlla bi loolu mooy lan nee na fa axastu bi bi sallam daal téye ca làmmiñam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko kuffa anka haazaa ni ko wattul ma kii muy làmmiñ ko yow Muaas fexeel muy sa làmmiñ wii yi ma la wax yëpp mën nga koy def man nga def ponk lislaam yi bokk na ñu koy la koy bindal ay tiyaaba waaye nga xëy bis wax genn kàddu la nga defal lépp yàqu moo tax ma ne ko wattu na kii ku fa am kër sa na nga fexe ba sàmmal ma sa làmmiñ wi sàmmal sa làmmiñ wi ci julliti yàlla yi sàmmal sa làmmiñ wi ci jaami yàlla yi bu wax loo xamut bu wax loo wóor bu ci jëw bu ci fen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni dafa dégg lu bees daa ci siggi wax xool yonent bi sallallahu ni ko yow yonentu yàlla bi ndax li ñuy wax suñuy làmmiñ ëllëg yomal xam dañu koy jàppe yéen sa ni ko sakilat ki ummik ni ko yow Muaz foo nekk yow sori mu ne ko xanaa xamoo ni bari na xam ne ëllëg yawmal qiyaam dina leen sóob ci biir sawara ko yóbbee te fekk na kat mboolem ñu leen yàlla santoon ñoo ko doon def la ñu doon matal seeni ponk ba sax di ca dolli ay naafil la waaye sàmm woon seeni làmmiñ ba tax mboolem lañ doon jëf ci lu baax. bisub keroog seen làmmiñ moo ko yàq moo tax yonent bi sax ni ko yow Muaas ba nga ñoo xam ne ëllëg yawmal qiyaam dina leen sóob ci biir sawara fekk na ndax ñu leen sóob ci biir sawara seen làmmiñ moo leen ko yóbbee génn kàddu boo xam ne wax nañ ko jàpp na ko oyof na fekk na ëllëg yawmal qiyaam moo leen dugal sawara wala yaas billah kon jullit bi saa yu góorgóorlu ci jaamu yàlla di góorgóorlu ci ko sunu borom sant di góorgóorlu ci ay ponk lislaamam di góorgóorlu ci ay war naa fexe ba sàmm làmmiñam bi ba du ci wax lu mu xamul ba du ko wax du ci wax lu ko wóoru waaye tamit du jël jënd kàddu bu ñaaw di ko yëkkati di ko teg ci dara mbokk jëntam ndax bari waa nit koo xam ne nitam ko séen di ko xeeb fekk na nga wax ma di ko xeeb nit a wax ci moom kàddu bu waa na koo xam ne saa yu waxati kenn ko déglu lu tax kenn ko a dugg bari waa na koo xam ne nit a ngi baakaaru ci moom day xalaat ci moom xalaat yu ñaaw lu tax muy xalaat ci moom xalaat yooyu nit wax ci moom kàddu bu ñaaw mu jàpp loola kon làmmiñ lu mën a sànq nit la lu mën a yàqal nit la doonte sax nit ku baax nga nit ku tedd nga nit kuy góorgóorlu ci jaamu yàlla nga waaye boo fexee ba sàmmoo saw làmmiñ loo jëf ci jëf di baax saw làmmiñ mën na koo yàq kon jullit bu nekk war naa bàyyi xel loolu te xam ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci képp koo xam ne da ngaa bëgg ëllëg yow ma nga bokk ci ñi war dem aljanna bi ko saxaab yi li laajee mu Muaas ibn Jabal lii la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénk ni nga fexee ba jàpp ci lii soo jàppee ci lii de ëllëg yow ma allah man ngaa bokk ci jëm aljanna waaye bokk ci mucc ci sawar ko jullit bu nekkoon naa bàyyi xel ni ay jàmm yàlla loo ko fonk fonk fonk te bàyyi woo xel saw làmmiñ li ak li nga ciy tudd xamal ni sa jëf joojee ëllëg yow ma nga ko perte kon mel na ki waxtu wi dam nañu aqulu qawli haaza wa astaghfirullaah lakum wa li saa'iril muslimiin wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسوله ومصطفاه ذروة الشرف الذي لا يخلق له مثيلا أما بعد فيا أيها الناس هذا شهر رمضان قد أومأ إلى الرحيل ولم يبق إلا القليل وبدت شموسه على أطراف النخيل فشمروا في العشر الأواخر عن ساق الجد والاجتهاد وتزودوا من فضلها أنفذ الزاد والتمسوا فيها ليلة القدر العظيمة الشان واجتهدوا في طلبها قدر الإمكان عسى أن تنالوا فدلها المدخر فإن قيامها أفضل من عبادة أفرش ألف شهر فهذه هدية من ربكم الأعلى فما أعظمها وخنيمة من بها عليكم المولى فما أكثرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى اختار الأيام فجعل منهن الجمعة واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر واختار البقاع فجعل منهن المساجد فاغتنموا رحمكم الله خير ليلة في خير شهر في خير بقعة اختارها المولى وزينوا ذلك بأنواع القربات التي تحمد قولا وفعلا aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum الحمد لله الذي يزيل ولا يزال الذي حكم على القمر بعد الكمال بالمحاق والأفول وقد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول أحمده سبحانه وتعالى wa astaghfiruhu min sahwin wa ghaflatin wa zuhul wa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam akramu abdin wa a'zamu rasul amma ba'd فيا عباد الله قد علمتم أن رمضان راحل ولم يبق للشوال إلا الحلول shahida ala almusii bil isaa wa lil muhsini bil ihsaan fa zawwidu bi taa'ati ya ixwaan wa adriku ma baqiya min shahrikum bil ijtihaad wa waddi'u shahrakum haadaa wa qulu laa awxasha allahu minka yaa shahra alqur'aani wal gufraan yaa shahral qur'aani wal gufraan layta ayyaamaka alaynaa biddawaami taquul fa hanii'an liman huwa fiika maqbuul wa fil hadiis shahru ramadaan mu'allaqun bayna as-samaa'i wal ard laa yurfa'u illaa bi zakaatil fitr waffaqana Allaahu lil qiyaam bi muraa'ati haadha ash-shahri wal qiyaam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 أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة summa kaana min alladina amanu wa tawasaw bilsabri wa tawasaw bilmarhama ulaika ashabu almaymana walladina kafaru bi ayatina hum ashabu almashama alayhim naarun musada allahu akbar allahu akbar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 assalaamu aleykum assalaamu aleykum ki wa rahmatullahi wa leen di nuyu di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan ci yàlla yal na nu yàlla boole jéggal jaamu gi ñu def yal na ko yàlla nangu te yàlla bu mu doon sunu mujj julli xeer yi ñu nekk yal na yàlla may na ñu àggale te bu ñu paree yàlla na ko nangu te yàlla bu mu doon sunu mujj fekkee ñoo ngi leen di ndokkeelaat bu baax la ci bés bi ak ci weer bi mu mel ni imaam ah yàlla dafa dogal mu am benn magam bu jiitu ji démb wax dëgg mu xaw a bett lool ko defee mu woote ne ñu dolli ko ñaan magam la mooy seen taw kër ko defee ñu defal ko ñaan ginnaaw loolu suñu mbokk yi nga xam ne dëgg ñoo bokk nekk ci marché bi ñu suñu mbokk téyeer yi ci njiital sëñ Seck ak sëñ Bayti sànq lañu fi ñëwoon rek na ah dañu bëgg ñëw maanaam barkelu ci jumaa ji ndax yàlla ak seen tele bi yàlla defal leen ci barke su ko defee loolu moo dem seen sabab pour ñu ñëw ah su ko defee jumaa ji mi ngi noonu xanaa ñu bàyyi leen rek ak imam Haji Jili wala Seydina Omar waaye ñu ngi leen di dalal ñoo ngi ñaan itam ñoo ngi rafetlu itam taxawaay bi di ñaan ci yàlla yi nga xam nu ngeen fu ngeen bëgg mu yegg rek yàlla na ko fa yàlla yeggale tam ànd ak barke ak jàmm bi xurmati nabina muhammad alayhi salaatu wasalaam ak ci barke weer wi ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax sallallahu ala nabina muhammadin sallim xanaa ñu jox imam rek su ko defee suñu bés bi bi nga xam ne ñu ngi koy faral di def ci ndigalu góor gi Baye Moustapha su ndegi suba la incha allahu taala ñu ngi sàkku nag ñu dolli ñu ci ñaan ndax ñaan moom du doy tabarakallah ñu ngi sàkku ngeen dolli ñu ci ñaan loolu daal lañ ñoon wax ngeen baal ñu ak àq ngeen ngeen def baal na ñëpp àq yal yàlla boole jéggal kon àq te di leen baalu xaq di ñaan yàlla boole ñu baal yàlla nangu sunu jaamu yàlla jéggal ñu sunuy rëcc rëcc sunuy waay dawlu yàlla yàlla yeesal yërmande si ñoom ñi tawat yàlla yàlla defal leen shifa ñi nga xam ne ni ñoo fi ni te di borom aajo yàlla ñu yàlla defal fajuk aajo yàlla ñu yàlla defal saadatu daaray ni weer wi comme ni ko imaam waxee mi ngi tàggoo ndax xaaj na lu xaaj nag la fa des moom bëreetul waaye gën góor góorlu rek ndax résultat bi comme ni ko imaam Omar doon waxee mooy ñum buñ buñ si génnee mu jural ñu ragal yàlla yàlla nañ si amee texe goo xam ne nii texee di dootu si toppati mukk ñuy dundal guddi yi ndax li yonent bi wax ni képp ko waxe woor na weer wi booleeg mu taxawu guddi yi boole ko gëm yàlla ak yaakaar payam yàlla dina la jéggal bépp xeeti bàkkaar boo mës def ak bàkkaar boo defagul kon yàlla yàlla nangul ñu imaam ni mu ko waxee itam nga xam ne dafa am ndog muy magam bu wàññi ko nañ ko defal ñaan ñu bokk jàng faatiha jàng sóoratul ixlaas ñetti yoon xam naa ni jiitu nañ ñu si ñaan ga waaye sunu ñaari fekk ko fa ndax foofa xam nañ ni que ku fa jiitu ñaan du fa doy te lu la fa fekk rek bénéfice la kon yàlla na yàlla xaare ko àjjana ndax weer wi mu ko defit weer bu ñu am yaakaar la weer boo xam ne tëj nañu buntu safara yi te boo eggee il faut ñu am fuñ la dugal kon am nañu yaakaar ne bu eggee yàlla dina ko tabal ajjana kon ñu jàng faatiha suuratul ixlaas ñetti yoon ufal ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad allahu jal sawaba ma qara'naahu barakata ma tarawnaahu min kitaabika azizi hadiyatan waasilatan wa rahmatan muttasilatan minka ila ruuxi abdika ibnu abdika ibnu amatika allahum ixfir laha warhamha allahu ansil sawaba zalika ilayha waj'alhu nuuran yasa bayna yadayha allahuma akrim bihi muqaamaha wa yassir bihi xisaabaha wa daif bihi sawaabaha wa jaal raxiqal maxtumi sharaabaha allahuma annis wahdataha warxam qurbataha wa tajaawaz xanaa bi fadlika wa juudika wa karamika yaa raximu yaa raxmaan allahuma igfir li xayina wa mayitina wa xaadirina wa gaaibina wa sagiirina wa kabirina wa zakirina wa unsaana innaka taalamu taqallabana wa maswaana waxfir lana wa li walidayna wa liman sabaqana bil imaani maxfiratan azman wa lil muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat al ahyaa min al amwaat rabbana taqabbal minna siyaamana wa du'aana wa rukuana wa sujudana wa qiyaamana wa qiraana rabbana taqabbal minna bi jaahi al mustafa salla alayhi rabbuna kama stafa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waa télé bi itam comme ni nga ko waxee rek ñëw jàpp si liggéey bi siwal